ci jamono yii ñu jublu si. ci jamono mu gën a feeñ mu gën a feeñ ci jëflante. mu gën a feeñ ci suñuy jëflante. teeru suñuy gan. mu gën a feeñ ci yaatal nit ñi. mu gën a feeñ ci yaatal dimbalante. ci suñuy dimbalante. ak suñu gouvernement.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 baaraam bi dégg nga wala waaw dégg na wala mu ne nga wax ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وعند سيدنا waxal seede naa dëggal naa ne yàlla rekk lañ war a jaamu seede naa dëggal naa ne yonent yàlla Muhammad yàlla ko yónni seede dëggal naa ne Isa jaamab yàlla la yonentab yàlla la ruuxu yàlla la moom Isa du yàlla du doomi yàlla jaami yàlla la nangu nga loolu ci sa nangu nga mu ne waaw kon léegi jullit nga kon jullit ñëpp. war na la. bër bu set nga julli juróomi julli. bu weeri koor ñëwee. nga oor kon jullit ñëpp. war na la. boo amee alal. dem Makka nga dem aji Makka. war na la. boo amee alal. nga génne ci asaka. ndax nangu nga kon léegi jullit nga ne jullit yëpp. waa jumaa ji yëpp say mbokk lañ. fii ba Nigeria say mbokk lañ. fii ba Màkka say mbokk lañ. naka nga tuddoon. mu ne Faatu nga tuddoon. ba tey Fatima lañ la tuddee rek. Fatima Zahra. Thank you. na ku nekk jàng fatiha benn yoon ñetti suraatul fatiha amiin amiin amiin yaa rabbi Khalifa Cheikh ngeen doon teewlu ñu fii ci li nga xamante ne doon jox rendez-vous ak yéen ci programme ci Hadratou Ibrahima jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf